match bi comme ni mu débuté rek xamoon na métti dafa mel ni ñoom dañoo xaw xam nu ñuy jouer quoi parce que dañuy taxaw dañuy taxaw seen camp di xaar bal bi ñu rogalaat ñu delloo ko ci kanam xam nga xam nga Coupe du Sénégal rek match booy jouer moom du yomb quoi ndax koo xamante ne dañ koy éliminer du ñëw pour nga gagné ko noonu mais def nañu booy résister nañ chaque instant ñu ngi jéem a créer occasion pour dugal ay bii malgré premier mi-temps essayé nañ ba dugal benn waa ji égaliser mais boo gisee ba ñu deuxième mi si di premières minutes yi dañoo forcé pour jéem leen dugal deuxième bii waaw mënoon leen leen dugal ay troisième bii ba quatre sax mais boo gisee rek parce que ñoom occasion yi bari yoon na quoi manque d'efficacité te des fois yàqamti wala xam nga rek bal bi waroo ko yàqamti quoi manque d'efficacité am na bal yoo xamante ne waroon nañ ko mën a retirer même man sax mënoon naa dugal ay yeneen bi mais yëpp ay jàngal la ko waaw chaque match rek ak leçon bu mu lay jàngal quoi. waaw parce que coach bi nee na ñun chaque à tout moment rek chaque 15 minutes war nañoo mën a dugal équipe bii moo tax ñun heure bu ñuy gérer rek heure bu ñu yoree bal chaque instant dañ naan dañ laa tant que dugal lañ la bii rek duñ mën a am jàmm quoi chaque jour coach loolu lay dëkkal suñu nopp waaw. waaw parce que ñun chaque entraînement rek dañuy gis dañuy gérer transition travail devant le but bu ñu yoree bal bi rek tak dañuy jéem a gérer kanam moo tax à moment rek adversaire mën nañ la dugal bii. waaw kosu lool loolu la may briefing rek chaque match damay bëgg di dugal bi parce que danaa ma yow nekk nga joueur boo xamante ni chaque match war nga mën a di dugal bi moo tax man heure bu ma nekkee terrain rek à rek balaa maa def dara dama naan damaa war a dugal bii quoi pour gën a mën a nekk si match bi. waaw big bi moo ngi jugee si côté défense bi gars yi def benn benn jox benn excentré bi mu fixé daw di indi retrait ma coupé premier poteau xaar mu indi retrait ma teg sama tànk waaw waaw bal waaw ba ma duggee satisfaction rek xam nga moom attaquant moom dañ naan égal bii quoi waaw dama kontaan trop ñaan yàlla mu yokk quoi. waaw saison bi saison bi presque daa mel amagum naa neuf bi plus di def ay passes décisives andi naa ay six penalty wala sept penalty yooyu. ah bëri na de mu est-ce que nekkul onze xaw ma douze. waaw six penalty yi ma indi man mën na ay six penalty yoo xamante ni wala sept dama koy provoqué gars yi dugal ko quoi. waaw. damay kontaan rek xam nga équipe dañ naan solidarité quoi waaw ñun moom équipe bi boo gisee booy ñoom ñëpp bokk ndey bokk baay. waaw heure bu ñuy jouer rek dañuy jàppalante ku def erreur sa morom jàppale la moo tax équipe bi à moment rek dañuy gis. heure bu match bi heure bi di gën a dem rek ñu siy gën a nekk quoi te équipe loolu la solidarité jàppalante bokk ndey bokk baay parce que ñun suñu objectif mooy dem ba jouer senior Pikine dem ba jouer niveau yi gën a mag waaw ñun loolu la ñuy ñaan yàlla quoi waaw di kontaan si ñoom rek parce que démb supporters yi ñëpp loolu lañ doon xaar pikin gagné moo lay waral rek nit boo nekkee si benn affaire bul découragé jàppal ni ba 94e minute war nañoo mën a mën a dugal bi moo tax démb pikin ba bii bu duggee dañoo kontaan soulagé football noonu la ko waaw dañuy gën a góorgóorlu rek yàlla motal lépp quoi. di di di di ñaan yàlla waaw di ñaan yàlla ñu dem. continuer ko si jàmm terminer ko si jàmm yàlla jàppale ñu ba ku nekk li nga bëgg rek muy jour ak képp ku am ambition yàlla dimbali la ba li nga bëgg rek nga yegg si ak jàmm mu doon li gën si yow ko waaw ndax àdduna moom yàlla mun na dimbali ñëpp waaw man loolu laa jàpp ko waaw ku si damay kontaan si ñoom rek waaw muy coach beeg staff beeg président beeg dirigeant yi ñëpp parce que ñoom bañ jàppee ba tey bàyyiwuñu bañ fi nekkee fii dañ fi dañuy teg ay conditions yu baax bu ñuy gérer dañuy teg ay condition yu baax regroupement lépp dara manqué wul dara moo tax ñun bu ñu duggee terrain rek duñ def lu dul fas jom delloo leen jukkal boobu quoi waaw. waaw <laughs> Baba Dieye waaw dama kontaan trop tey rek bañ nekkee regroupement maa ko doon wax ne ko man bëgg naa dugal daal dinaa def effort tout pour dugal mais boo leen amee pour wan ma paas paas leen ma rek man su ma ko fekkee dama koy dugal moo tax ba ma dugalee dama kontaan quoi. waaw match bii di ñu moom ku ñëw baax na ndax coupe du Sénégal moom looy gën di dem rek di gën di tase ay équipe bi mag waaw te match dañ koy préparer match par mass parce que match yi yombul daal koo taseel rek jàppal ni match bu baax ngay séer quoi waaye